une loi dans la constitution dans les codes connus donc euh, etc cetera amul lenn lu interdire ku mu neex mën nga boo yëkkatee sa loxo balaa askan un wóoloo nga nekk maire nek député ben je pense que vous me posez question on ne me le pose pas aussi pour le cadre général on me le pose par rapport à mon parti man je précise également les statuts yu Pastef yi ñu déposé woon en 2014 man ak ku ñu wax Matar sen ñu déposé ko au ministère de l'Intérieur. man ak Ousmane Sonko ak Matar sen la déglu au ministère de l'Intérieur ci audition bobu lolu amul ci suñu texte. premièrement deuxièmement les textes corrigés en 2017 mako déposé au ministère de l'Intérieur. man ak Matar sen lolu amu ci. les textes qu'on vient de déposer en en 2022 mako déposé wat man ak Matar sen donc il n'est nulle part interdit d'être maire je le dis à l'attention de tous ceux qui nous écoutent il n'est nulle part interdit d'être maire et député dans le programme politique du candidat Ousmane Sonko en 2019 il avait dit suñu gagné nous voter une loi et moi je soutiens ça <laughs> moi je soutiens je soutiens que il faut voter une loi parce que il faut même aller plus loin même les maires maire mënul am di am deux mandats di di tek trois mandats quatre mandats dañu wara réglementer le mandat des maires yamal ko ci deux ans ci ci deux mandats. parce que un maire ku ñu fal 17 ans mu nek maire mais kooku gisatul parce que gis nga mbalit bi nga rom sa buntu keur bu yagge dootoo ko gisati donc yam ci mandat wu deux ans dafa doy ci même maire yi et donc il nous faut aller jusqu'à ce niveau de rigueur et de gestion motax ngay ñort ni di nga fi joggé 2 ans xeyna bo don wacc wàcc yoon nga ne naa jubbanti wu toogaat ci yoon wi parce que da nga fi joggé dañuy xam li nga fi lijeenti mais ma fi ne nous sommes ñu c'est c'est le la ay béjjén wala sulal la ay reen nga 50 ans ou aussi tu ne travailles pas sérieusement mais sur cette question là donc je disais en 2019 le candidat Ousmane Sonko le candidat de la coalition Jotna avait dit bu il ko mandat président il va voter une loi pour interdire effectivement le cumul de mandats d'accord ça c'est le candidat Ousmane Sonko qui était le candidat d'une coalition aujourd'hui moi Biram Soleil il n'y a pas d'engagement y' a pas a pas nangam y' a pas pour dire je ne le ferai pas mais les am moi, am man vous wax le choix que je ferai en temps voulu ce n'est pas parce que des gens sont sur les réseaux sociaux à dire dafa def nangam dafa nangam bi may dem di que Nord ken fekk ñu ci. ñi nek ci réseaux sociaux yi kenn voté wu ci dugg ci kër nit ñi di wax ak programme nangam suñu programme la ñi ci réseaux sociaux di wax kenn fekk ñu ci un choix personne personne je répète bien personne du ñu imposer nañu lii ngay def waxtu wi nga koy def wala lii ngay def.